tina ana ñu luubaloon xaalisu corona bi tribune yéen a kaay naan leen jël leen siis ngeen ñëw toog te jàkkaarloog ñun sénégalais yi ci boppam baalun leen te fàttewuñu corona di leeri leen yéen a kaay bi tuddee naan leen cim yéen a raw sax virus corona bi nga xam ne mi ngi doon faagaagal askan wi waxtu wi nga xam ne ñi ngi xeex ak virus virus boo xam ne daal dinay dugu biir sénégal di faat askan wi di leen faat ci anam woo xam ne metti na ñaaw na gars yi di wër hôpital yoo xam ne mënees na caa def malade yi mu taleen bi nga xam ne moo doon tax malade yi nokki seen dënn dafay dem ba ngelaw dootul dugg yooyee daal di manqué ci réew mi masque yi ñu ko doon jënd mu cher lool ndax moo ñu doon muccal ci wàpp ga gel nga xam ni moo doon faat microbe ba ba la doon saytu température bi laa la wax ngir xool ndax yaa ngeeg wopp jéem déet tëddoo loo lépp ñu daal di koy yokkoon ci réew mi ba maar day taali waxtu woowu ga yaa ngi yore ay milliards junni sax di yaataa yumbe di sar xool rek def la leen saf ci xaalis boo xam ne bu ñu ko dugaloon ci wopp corona bi ñu bari ci askan wi nga xam ne faatu nan desoon naa mucc moo it yéene kaayub dee média bi naan kon fàttewuñ leen yéen ñi lekkoon suñu xaalis ci corona gouvernement bi leen de suñu leen wekkee mbàjjum kiiraay ragg leen ba ngeen set fexe ba askan bi waxatul ci yéen terewul ñu fàtte leen mani la yéen a jël suñu xaalis rongoñ rongoñeeg moom lekk ko ci anam wu salte wu bon waxtu nga xam ne askan waa ngi ci souffrance goo xam ni maar day taali ngeen jël daal di lekkaamu leen yërmande ci seenug askan turbine yéen a kaay naan man fi mu ne coow li coow li kay Ousmane Sonko Ousmane Sonko mi nga xam ne yebal na mandataire am bii di Ayib Daffé mu dem jël ko caution bu Ousmane Sonko fan fanweeri million ñaabar ñaabareeg moom ba CDC daal di dépp déposé CDC daal di jël chèque ba daal di xutti ayib dafe naan coow li kay moom moo di dañ ma jébbal quittance bi nga xam ne mooy wane ni Ousmane Sonko mën naa bokk jébbal ma ab quittance sub dépôt 24 heures yéeni kaay naan man moom ayib dafe nee na ni ki DGE moom CDC amul benn compétence ngir wax kii mooy bokk wala keedu du bokk la war daal moom moo di luñ ko jébbal mu téye en attendant ñuy xool définitivement ci wàllu yoon kuy doon candidat am déet vox populi naan man la ca tey xel moom moo di CDC si boppam jëloon na chèque Ousmane Sonko bi lañu ko koy yónneewaat Matar Diop mi yor kàddu CDC ci turbine yéene kaay ne attestation définitive bi mani la gannaaw vérification lañ koy daal di jébbale te ba ñu vérifié dañoo gis ne Ousmane Sonko war ñoo jëlub chekam ndax moom Ousmane Sonko ci boppam bokkul ci liste DGE bi moom ayib dafa ci vox populi naan leen mane la seen deltu ginnaaw geeg seen tëb gii daanaka banditisme administratif dong lañ ko mën a tuddee ayib ne leen ñëw naa jox leen chèque ngeen jébbal ma ab quittance ay waxtu daal di jàll ci taskatu xibaar yi la ñu yégee ni CDC delloowaat na chèque ba te ba ba may bind sama communiqué amul fenn yoon fu ngeen ma waxee waxu chèque bii maître Ciré Clédor li naan coow lee fi ne de waaye ca pënd ba yi mu mujjee mooy usman Sonko ci boppam candidat la te kenn mënu ko koo teree doon ci réew mi ba nii ñuy wax ma ne la amul lenn ci wàllu yoon yu gàllankoor candidature yu Ousmane Sonko bi yéen kaay bi di ma xamal ne lu matul fukk dong jamono jii ñoo daal di déposé seenub caution may sa Wade déposé na Cheikh Bamba Dièye déposé na Thierno Alassane Sall déposé na Alpha Thiam déposé na Cheikh Bara Dolly Mbacké déposé na Idrissa Seck déposé na Alioune Sarr na Anta Babacar Ngom déposé na l'info yéene kaay naan man coow la ca pëndub teen ba gaañ amul baaga ba DG ne tàmbali naa joxe fiche parrainage bi te bés bu njëkk ba lu toll ci ñaari téeméer ak juróom benn daal dina ñuy dem jëli daar daar ci diirub ñetti fan lu jege ñetti téeméer ci candidat jël fiche bi tay jii nag ñetti fan a ngi nii ñi déposé caution ba lu matul fukk déposé wuñu l'info yéene kaay naan maan mani la bari na ci candidature yoo xam ne fii ngeen di jaaree xam ne muus muus lu la jox importance seen bopp la négocier ay poste moo ko tax a jóg ay avantage waaye tam ay candidat yoo xam ne daañu xool fan la seen intérêt nekk ngir ñu dem lëkkaloo fa le soleil yéeni kaay naan maan ko yóbbul xool la ngay def de ndax conseil constitutionnel moom dafa sax kafut fawul réewul yaa xam mbay ci yéeni kaay bi naan ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre bi conseil constitutionnel ak chef bu greffe par intérim bi daje nañu xool nees def ba jël fiche parrainage bi taxawal ab commission boo xam ne mooy saytu parrainage bi kay njëkk jébbale tirage lañ koy daal di defee te ñëppay toog conseil constitutionnel ne dossier yi nga xam ne manqué na benn ci pièce yoo xam ne article L 121 bu code électoral bi daf ko daal di wax duñ ko jël dossier yi nga xam ne lañ leen laaj ci parrainage matale wuñ ko duñ ko jël yéen kaay bi naan man fii ak fukki fan ak ñaar ci weeru janvier daañu xamal mandataire yi nga xam ne seen i parrainage jëluñu ko ne dañ koo rejeté ñaari fan la am ngir daal di def recours buñ ca na xam dëgg-dëgg kan mooy doon candidat ci réew mi ak ko doonul tribune yéen kaay naan man mouvement citoyen bii di Sénégal moo souci daal dina ñuy jébbal sa bopp moom Moussa Niang doon daanaka juróom-ñett fukk ya ci téeméer boo jot matal nañu ko mu doon am ñaari junni ci parrainage terewul Ibrahima fay ni ki démb daal dinay jébbal Bougane Gueye Dany téeméer juróom benn fukk ak juróom-ñeent ci xaatim di parrainage yoo xam ne mënees na ko yokk ci gëm sa bopp amoon boobaak tey waxtu woowu gaa yaa ngay yokkal ay parrain amadu Ba Mamadou gay meer bu jidda caaroy kaw daal dinay jébbal ñaar fukki junni parrain amadu Ba jébbalaat ko juróom fukk ak ñaari junni ci parrain muy juróom ñaar fukk ñaari junni parrain yoo xam ne daanaka Pikine mag ndaw góor jigéen ñoo ko daal di dajale Mamadou Gueye si fi mu ne lenn la moom moo di daal di fexe nag ba responsable bennoo yi doon benn xiiroo géeg ŋaayoo gi ñu daal di koy tegee nële ngir matal bëgg-bëgg président Macky Sall ci amadu Ba tribune yéene kaay naan maan ay bëgg-bëggam ci réew mi moom la docteur Abdourahmane Diouf daal di def ci fukk ak benn ci téere yoo xam ne daal dina cay le moom docteur Abdourahmane Diouf nees fa jaaree ngir daal di joyanti Sénégal réew mi ko di ñee naan maan Amadou Mame Diop ma ngay tex-tex may ree Sénégalu ëllëg niki dem ba ministère bu Moustapha Ba natal nañ ko gafaam ñeenti téeméer ak juróom fukk ci milliards yéene kaay média bi naan maan sëriñ buur Sow bi daal nay dalloo ab siège boo xam ne ca Nioro la nekk ngir daal di ñoŋal ab liggéeyam mu daal di gaaw te du am benn gàllankoor Dame Diop yéenekaay bi naan man dalal nañ koy njiital collège bu laboratoire national bu référence ci secteur bu bâtiment ak travaux publics daal di le ni yaakaar la sàll wékk ci moom te du yankeeku roy na sàllik ci xool loo xam ne daanaka ñëwagul te ca lay nekk ci secteur bi la sàll amoon yéene ci Afrique ak Sénégal jaarale ko ci PSE dees na ko matale ci wàllu bâtiment ak édifice public ñu war ca indi ay xarala yu yees waaye itam jëfin yu yoo xam ne dees na xam ne dëgg-dëgg pom du moroomu new lobs naan menteuse baa ngi de xeexoo goo xam ne amul bopp amul génn diggante ñaari mécanicien moo tax kenn ki daal di jël paaka jëm ñaari yoon xarit ba di mécanicien ni moomu daal di faatu ne ko doon laaj Axina eau minérale saalix ndox la mu neex te wóor rax ci dolli sell na te woyof toll ak bouteillam bu weex bii am classe néexatee boole ca présentable booy berndeel nga am ay gan baa ngay def sport moo ca wóor ndax ferñeent yamu am eau minérale saalix am na qualité ak quantité bouteille bu 1 litre cent am na 19 litres bu fontaine am na te li ci gën a neex mooy fu ay moroomam di leen jox 300 millilitres moom mu jox leen fa 400 millilitres fu leen ay moromam di jox 10 litres mu jox leen fa 12 litres xanaa du saalix moo woor kon saalix eau minérale la bu njëkk bu bawoo ci Touba ci ndigalu Serigne Saalixu Mbàkke borom jamono moo tax mën ngeen ko am fépp ci réew mi wala ngeen dem ci sunu ay makkan ñu ngi nekk ci Touba Dakar Thiès ak Diourbel ba sax ngeen woo ñu ci 78 151 05 05 wala 77 136 91 91 eau minérale Salix mooy ndox mi neex sell te woyof toll.